ma taxaw fii di bàyyi xel ay jëm yi man damay damay woye di xale bu ndaw laa. nee na boo demee seen écrit nañ la dee de. lan lañ may dee lu dul demal jàpp ko daan ko. Ah, bu lox loolu gaan. loolu lañ may dee. waa ñi ma àndal nii loolu dong lañ may digal. combat amoo ci benn doute. wallaahi aw ma ci xel ñaar nag ku xamul la joor nag mën nga ci am xel ñaar mais ku xam la joor lu muy daj di ko liggéey. ma yéen. mosoo dugg parcelle. man diin li ma si def kii ko koo aat. mosoo dugg parcelle li may def diin kii da koo mu. non yow bàyyil kii waaye man din man din ñëpp din lan ma xamee man ñu ma xam ñëpp si ay montagne lan ma ah, xamee. Kara Dollé moom moom dini. waaw ah, bu wax waxu Kara Dollé waaw. ma lekk katu dini ak Mame Mor bu Fass. waaw waaw bàyyi ma boobu xolam ma moo da suñu la ay Kara Dollé. waaw ah, ah Ladior maa lay jàmm am jàmm yaa ngi dégg. Er, kan dina wax daa teel. teel na trop li la ci dugal du la ci génn de mas ngaa du géejawaay. géejawaay. doxal kii déggal kii. man xale laa moom mag la ko xam nga man danañ sóoraale naaj bi ndax moom mag la man xale la am man mën naa fee weeru ba heure bi ñëwaat waaye kii boo ko fi weeree du baax de. la jor kay. la jor ah, am nga combat de. soo bëggee soo bëggee bëre di nga bëre soo bëggee xeex di nga di nga xeex. la jor bi si ma ne la ciix billah wala di nga rëcc loo doon duggee si man. wóor na sëñ bi waaw baax na kii bu nee ma ciix. Ah. Hmm. di nga xeex nga xeeb sa bopp kii bu ñu nee pirip. Hmm. wala sëñ Tuubaa bu ma lee ñaan sax du ma ko def. la jor gis nga ah, dinaa tàq ni belu fetal ci kaw moom mii. gis nga ñi ma bëreel <laughs> moom ëpp na nga la jor ñi ma bëreel. Hmm. billaahi wallaahi taalaay wóor na Sëriñ Bam ñëpp képp ku taxaw sama kanam. ban jàppante da nga bàyyi àdduna da nga bàyyi yaay. man du ma ñooñu dama lay expliquer man ñooñu ay ree lan ma def sax parce que naa ñoom ba pare man yow laay lijjanti mais bi si at bi sifflé si mu ne la ciix wóor na sëñ Mamour soo amul sens ginnaaw stade bi laa lay baax na bési nga la li nga wax nii. nañ ko dëggal man ma dëggal li ma wax bu boobaa duñ tardel kenn si làmb. man yow sa bi moo la gën a xam ne man du ma arrière lit. waaw leer na moo la gën a xam loo xam naa ni champion nga jàmbaar nga. la jor man du ma mën nga bëri mais da ngaa daje ku la mën ci loolu lépp ngay wax. maa la maa la gën a xoteeku wallaay maa na sëñ Mamor maa la gën a xoteeku maa la mën fuuf la joor yow xamoo ma koon yow quoi moo tax ngay ndellu quoi booy. baax na teg leen foofu seen baaraam maa ngi ñëwaat seen Ouzin. la joor maa la mën de de de bu leen laalante bu leen laalante non bu leen laalante de bu laalante bu leen laalante la joor kaay. de waaw la tey Ouzin boo amee loo leen di laaj. ma xees ngeen bëgg ma génne si làmb ji. ma nangu loolu booy. wóor na sëñ Mamadou ma nangu loolu man la mbër kenn mënu ma. man maa bon ci mbër mu xees. soo leen seetee soo demee nan lay waroon dugg si bërëb boobu. am na solo. maa lay ziar bu baax a baax Ousseyn. maa lay dellu ziar bu baax Modou. ci loo ne. sant yàlla bu baax. defati nga mbir de ginnaaw bi ma la nuyoo. waaw alhamdulilah rabbil alamin nañuy sant yàlla bu baax. jullit Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa di la ziar bu baax di ziar Ousseyn Wasaare. vraiment di kontaan ci ñaari mbër li nga xamante ni jot nañ ko fi wone mhm. ku leen xool xam ni xëy na nekk nañ mbër yoo xamante ni duñ yàq bés te dañuy jaay bés bi mhm. di wax ni ay xale lañ mhm. combat bi nag dama ci remercier kii tax mu taxaw muy as Cissé li may wax chaque jour beneen bi di remercier zëm mi nee na dafa xees moo tax ñu bëgg ko génnee ci làmb man du ma nangu loolu <laughs> dama koy indiwaat tëgg ko parce que maa moom am na fu ñu jaar. Mm. vraiment mu nekk sama rak nekk sama xarit. incha allah yaa ngi dégg. Mm-hmm. di gërëm mbës bu baax. waaw parce que tey combat bi bu taxawee ci lajoor Dior. dox ci lu bari. Mm-hmm. kon mbës maa ngi koy ziar mbës. macha allah di remercier Lat Dior bu ko neexoon tey mu ne du jël kii. Mm-hmm. mais comme ñun ay ndaw lañ. xam différence mi ngi fi. dañuy sant yàlla bu baax rek. di wane ni làmb ñun ñoo ko opté nekk ko bu nekk promoteur. ñoom ñu opté nekk mbër. dañuy jàppalante ñun ñëpp. dinañ ko neexal dinañ ko bëre ci jàmm salaam. Mhm. comme li nga wax sànq rek bi mooy sama quatrième journée ci saison bi. ci saison bi. sant yàlla nag bu baax. Mhm. loolu nag su ma demee ba di ko def grâce à ñi nga xamante ni mooy mbëri ak ménager yi. Mhm. du ma bàyyi kenn ñëpp laay sant. ak yéen ñi nga xamante ni yéenay wasaare tas sama làmb. ci partout. ba mu a ñeme di organiser waat. macha allah làmb ji nag ci kàttanu yàlla. la kañ ñu ngi ko bëgg jàpp le 16 juillet. waaw loolu ñëw na de. ñëw na ba pare <laughs> parce que ñoom ñaan ñëpp dañu xëy ni dañu xam ni man sama sen seen grand frère la. Mhm. différence de d'âge bëriwul sax. moo tax ñu jàppale ma parce que ku jël làmb mooy de quarante cinq jours. Mhm. xëy na bëgg a Ouzin ah moo tax nga def ko. Mhm. kon da leen ciy sant bu baax. le 16 juillet dama jàpp ni bu ñu tabaskee rek. da samedi bi stop foof la fi arène nationale. moom lañ jàpp gum combat bi. di ci xaar nag maanaam ñi nga xamante ni mooy partenaires yi. ñu jàppale Ouzin production. jàppale mbër yi. ñi ay champion la dañoo war nekk ay roi des arènes. yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba mu tëgg leen jour bi ñuy bëree seen. Euh, roi des arènes loolu mën na nekk yàlla na ko yàlla def. ayca wooteel ñi lay jàppale. waaw ñi may jàppale comme d'habitude rek ñaar la am. Mhm. chaque jour ma di ko wax. Mhm. man Néné Tall laa am ministère de la jeunesse. macha allah mu nekk sama xarit. Mhm. nekk sama jigéen vraiment nangoo sonn samay mbir. yàlla xam na ko. kon Néné vraiment ñi ngi waxaat ni sa sa xarit. sa partenaire jëlaat na date pour war a organiser le 16 juillet incha allah. incha ki ma ci topp Mbengue muy président union régionale mutuelle santé de Dakar koo xamante ni lu ma dugg mu ne ci kooku moom it maa ngi koy wax ne ko ni rakkam jëlaat na ko journée ko war a organiser waat kon maa ngi koy woo ci lii nam daan jàppee mu jàpp ci loolu moom maa lañ ci woo baax di woo ñi nga xamante ne mooy staff Ouzin production bàyyiwuma kenn sonn nañ samay mbir affaire yi neexagul nag mais ci loolu nañu mën a jàpp ba yàlla di indi leneen macha allah parce que ñi ngi organiser ñi ngi sonn. man nag la may wax chaque jour rek saa yu may organiser wax nga ko sànq ñi ngi fexe di indi derby parcelle géejawaay. Mhm. xëy na dañoo jege mbëru géejawaay ak mbëru parcelles yi. Mhm. moo tax xëy na loolu day am. mais bàyyiwuñ fi kenn képp ku ñu war a tëgg rek incha allah dinañ ko tëgg. dinañ ci jàpp ñëpp vraiment ku ci war a jàpp rek dinañ def la tout nga jàpp ci pour la ji mën a sotte jàmm. di leen gërëm di sant di gërëmaat encore une fois mbës ni muy sonne ci maa ngi koy remercier bu baax ci li ñuy def maa ngi koy gërëm bu baax bés assisé ak yow mi Modou ak Ousin mii nga xamante ni vraiment sama journée bi passé def nañ ci liggéey yoo xamante ni mhm. aw ma seen fay yàlla mi am fay laa ni balay bàyyel yàlla na yàlla fay di gërëm ñaari mbër yëpp di wax ni amateurs yi maa ngi leen jox rendez-vous le 16 juillet fii ci arène nationale incha allah macha allah dañ koy bàyyi mu dem kooku ngi noonu mooy Ouzin Production macha allah wax dëgg yàlla mu décroché combat bu neex incha allahu rabbi nag am na yenn combat yoo xamante bi nii dee nañu ci muy combat yoo xamante bi nii war na cee am xam naa ne ñu ngi xaar yeneen camp yi rek bépp buñ d'accord rek incha allahu rabbi ñu décroché combat yooyu noonu waaye Ouzin loo loo loo bëgg na tàmbali ku ne xam hmm. daanaan la. Hmm. te am na fu mu teg bëtam ci làmb moom nag waroon na dépassé fii. dagg la na ko téye. Mhm. mais digganteem ak kii est ce na dugg ci moom. waaw est ce umpale wala Dior. waaw non man moom adversaire yaakaar naa ne mënatuma jaaxal sama adduna. Lat Dior mii yaakaar naa su ma demee bu ma jaaxal ma bàyyi làmb quoi. est ce que umpale woo ko fi mu jaar quoi foofu lay waxee. non loolu du dara ay fu mu jaar man fi ma jaar a gën a métti fi kii jaar man ñi ma daan kii da leen daan. kii daf maa mën a daan xaaral may waa yow dama bàyyi. ah man néew la <laughs> ah ma waay. du ma néew waay yow it gaan ah kii a xam naa bu baax a baax waaw man ku seetaan. combat bi loolu du dara man ku seetaan samay combat man xam ni damay ñëwee jom fulla fayda damay bëre ba kenn du ma mere. li temps bi li du dara tabaski bi dañ koy jël teg ko nële jublu si loolu. jërëjëf. xar yeeg yëpp dama koy jël dégagé ko nële jublu si combat bi. la laa mais si la joor laa war a jublu parce que man tamit xam nga man instant bi xoolal man ñi ma daan. ah man ma nga man nga xam ne sama xaalis daa nekk dafa nekk fii ma xam ko bu baax te dama ko war jël si man sama yaay maay taam na nga war dimbali tamit. am na solo tontul li ko Ouzin laaj mu tontu ci mën ngaa ñëw ci question. waaw moom amaan dama daan kan kii. doo ko daan waaw kii leneen laay wax moom nee na tabaski sax du tar xar waaw man dinaa lakk may ko mu lekk du lekk naan boisson ba suur ma ñëw daan ko jël bu gaaw xam nga mi ngi fii waaye man kii bu fi xaalisam nekkee man sama lan moo fi war a nekk sama addunaa ngi fii kon man man mi xale moom mi mag la xaalisam nekk ci man sama addunaa fi nekk Ah. mbës mi moo la gën a xam ne am nga combat. waaw combat am nañ ko. mais yow xam ne man xale laa te damaa gëm. mag laa garaaw la am problème. macha allah yaakaar naa am na solo. la jor lan ngay woote waaw maa ak sa premier grand combat aussi tamit nan nga fas yéene ñëw parce que grand komba mbër génn na ci. làmbam neex ba faw ci mobilisation ci maanaam ni mu ñëwee ci biir làmb ak li mu def ci bés bi ñëw na génn na fi promoteur di ko xëccoo nan nga fas yéene ak waa Guédiawaye. waaw di àndaata comme ñi ma ànd sama premier leen wax ni lii suñu bi mooy suñu ubbantalu combat grand mba mhm. di leen woo ñoom ñëpp bii daa war a wuteeg yëpp yu fi jaar yëpp mhm. waa ñoom ñëpp ñu gën a jugaat ñëwaat préparé waat ko ñëwaat du woo waa waa Gunaas waa Comico waa Marsam bi ma dëkk waaw di leen woo ñoom ñëpp di woo fan si club yëpp ñu wax leen ñu jugaat waa lànk ñoom ñëpp di woo gaa yëpp daal Cheikh Saw kooku moom du ma ko sant sax du ma ko woo moom mu ngi ci mu ngi ci bu baax ñoom maa ngi woo gaa yëpp daal ñu ñëw jàppaat si bu baax di woo Ahmed ñëpp waaw ah, di leen wax ne dañoo war ñëw mobiliser wu feesal fii seen état la man fii dëkk boo yuuxu dëkk suñu kër. <laughs> waaw ñu teel a ñëw jàpp sa waay daan ko jël bu gaaw dem ñibbi waaw. sëm xam naa ko. xam naa ko bu baax seetaan naa ay combat am. seetaan naa ay combat am de dama ay ci ñu ko xees rek. ayca looy woote. yaakaar naa loo di woo waa parcelle gépp hmm. man moom parcelle man. parcelle sama bës la ñuy xaar. man sama bés événement la. Hmm. xam nga sama bés événement la. xam di woo waa parcelle gépp avant tout damay jaale sama grand. Hmm. def naa erreur. waaw di ko ñaanal yàlla gërëm ko xaare ko àjjana suuf waaye su ko am hmm. saraxam yàgg seen loxo. xam di ko jaale mbokkam yëpp bool bool yëpp maa leen koy jaale. waa di woo waa parcelle gépp xam nga di woo sama sa sëñ Abdou Ngingue. di woo sama sëriñ sa Mamour Mbacke. xam nga di woo ñëpp bàyyiwuma kenn. waaw parcelle maa ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp ba baay yow baay baa nga <laughs> parcelle maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn xam nga nga xam ni bi mooy sama premier grand combat ñun ñoom mobiliser ma def li ma daan def waaw man mooy loolu mbër bu xees bi macha allah mi ngi noonu rendez-vous yaakaar naa ne Ouzin kañ la le 16 le 16 juillet incha allahu rabbi yaakaar naa ne noonu la demee pour l'instant booy ki tëgg pro ki tëgg làmb ji jël xaalisam def ci moo bëgg a làmb ji wàcc ko booy zëm bu ñu fontoo ba tax na incha allah yéen ñëpp ñu ngi leen di jox rendez-vous supporters yi Lat Dior ak supporters yi zëm yëpp ñu ngi leen di jox rendez ak lu ci mën di xew yaakaar naa ne ñun ñëpp. waaye